jërë ngeen jëf ci xët bu njëkk bu suñu làmb mu ñuy xamal ni Balla Gaye numéro 2 CNG de lutte bi dagg nañ ci reliquaam lu toll ci cinq millions huit cent mille francs moom la ñu dagg dagg boobu nag ñu ngi koy xamal ci xët bu njëkk bu suñu làmb di ñu xamal que ni Balla gay 2 li mu indi woon ci accompagnant dafa bari bari boobu ci la suñu ci la CNG bi sukkandiku ba bokk na ci tënk ci ponk yi nga xamante ni dagg nañu ko ko ci xaalis ñaareel bi ñu xool ci wàllu temps li mu ci jël ci temps Balla Gaye 2 dafa bari lool ci wàllu préparation mystique bi ba waral CNG bi de lutte bi boole ci loolu ak avertissement yi nga xamante ni Balla Gaye am na ko ci làmb ji ñu xayma lépp def ko ci cinq millions huit cent soixante mille francs CNG bi dagg ko ci loolu ñu dagg ko ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 ci loolu nag la ñu dëpp ci adversaire bi nga xamante ni mooy bombardier la B52 de Mbour moom it CNG bi dagg nañ ko deux millions deux millions francs CFA la ñu ko dagg moom it ci dagg bi yëpp ñu ngi xaymal ni li mu dugal ci nombre nit dafa bari avertissement yi mu jël ci préparation mystique bi moom it dafa bari loolu ba wàcc say yi nga xamante ni ñoom la leen CNG bi digle woon ak ñoom ba waral ñu dagg kii di B52 de Mbour moom it deux millions ba tey ci suñu làmb mu ngi yëngal ci mu ngi yëgal ci xët bi ni Balla Gaye 2 est-ce que dafa nar def ni Tyson defoon ci fin de carrière ndax boo xoolee Balla gay 2 carrière làmbam li mu ci def yépp mësuñu ko dagg li nga xamante ni mooy xaalis wala boog li ñu ko ko doon dagg bariwul ñu ngi gis ci combat moo Gris Bordeaux Balla Gaye 2 jël na fa avertissement yu bari ba ñu dagg ko ci xaalis bu baree bari ñu gisaat ci combat moo Bombardier ñu daggaat ko ci li nga xamante ni mooy xaalis bu baree bari ndax boo xoolee cinq millions huit cent soixante mille presque mënoon nañ ñu Balla Gaye dagg nañ ko lu toll ci juróom benn million parce que loolu boo ko xaymaa li ko manqué ci juróom benn million bariwul euh, ñuy laaj rek ba xam Balla Gaye 2 dafa nar a jaar fi mu Mouhamed ndaw Tyson jaaroon ci fin de carrière am ñu di ko dagg di ko dagg di ko dagg ci xaalis bu baree boobu mbokk yi ñu leen di jëfalaat bu baax a baax a baax di leen jox digg daje ba ëllëg incha allah.